thank you mbokk yi ñu seetaan si Sunugal 24 point net ñu ngi leen di dalal ak jàmm seen émission question politique question politique tey muy dalal ki xam ne mooy Serigne Modou Mbacké Bara Dolly mu nekk euh, koo xam ne xalaat bu baax si wàllu politique si Touba ak si Sénégal fan yi passé mu nekk si benn euh, actualité boo xam ne bëgg nañ ko laaj muy ñëwaat si tuuti sëñ bi ñu ngi lay dal gannaaw bu ñu dalal ak jàmm Sunugal 24 nga ñëwaat rek si xew-xew yi passé asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Euh, ñu ngi leen di nuyu yéen waa sunu gaal nga xam ne yéen ay gaal gi euh, sëñ Modou Mbacké Bara Dolly euh, chef de religieux muy sëriñ ñu mën koo woyee doomi soxna muy responsable politique APR bu Touba jiite président rassemblement famille religieuse du Sénégal alors sëñ Modou nga nekk fan yi si biir xew-xew nekk si actualité politique bu ñu nga mën a waxee noonu ak benn affaire bu xewoon sa AIBD ba ñuy teeru li nga xam ne moom mooy néewu kii di Ousmane mën nga ñëwaat tuuti rek si mbir waaw loolu mën nañoo wax ne bala ñu ñëw ci loolu euh, euh, ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan euh, di siyaare suñ kilifa gu tedd gi mu Mountakha Khadimou Rassoul ñaaneel ko mu yàgg fi loolu ci wér ak mboolem xalifa bu nee ci réew mi eh, di la ñaanal yàlla def ci ñoom jàmm euh, kon loolu li nga wax léegi nii man noo wax ne xewutoon rapport mi ngi xewoon ci fi nga xam ne mooy ngéñeen euh, waaye waaye gannaaw avant ngéñeen bi dafa njëkk xew Touba nga xam ne bu ngéñeen bi deuxième fois la ñu def ko ñaareel bi yoon la pour ñu def ko kon jàpp nañ ne mbir la moo xam ne nii euh, fii may wax ak yow maa ngi jege dig dig diglu nu ma pendant quatre heures de temps Euh, yoo xam ne nii déglu na ma euh, jël naa sama plainte jëbbal naa ko euh, la ci des nag maa ngi toog de di xaar mais lii indi mbir mi it yaakaar naa lu ci bari wax naa ko ay mbir la yoo xam ne kenn mënut a xam fan la jógee parce que li tax kenn mënut a xam fan la jógee mooy lan jàpp naa ne président Macky Sall ak ni mu demee ak sëñ Modou Bara Dolly mën na noo wax ne muy xaritam di kóllëreem bu yàgg bokk sëñ Modou Bara Dolly bokk ci ñi nga xam ne tey bu dee wax président Macky Sall ñun man bokk naa ci ñi ko njëkk amuloo ambition mooy ci jamonoy Ablaye Wade li njëkk a créé ci kaw suuf muy benn mouvement man bokk naa ci ñi ko kere muy am wadd kon jàpp na ne ci tey yii ci tey am wadd boobu ma doon wax kilifa yu bari ci tey ci biir parti bi jamono yooyu bokkoon nañ ci am wadd boobee euh, ci biir lu mel noon it ñëpp xam nañ ne euh, suñ kóllëre kenn umpaleetu ko ci réew mi ñëpp xam nañ ko kon jàpp nañ ne ñun euh, ak suñuy jaar-jaar ci politique ak li nga xam ne moom lañ bokk ci wàllu diine jàpp naa ne am na beneen mérite bu nu war a mën a xaar bu dut li nga xam ne am na ko wax nga ko ñu ñëwaat ci euh, muy jumaay Touba sëñ Modou Bara Dolly nekk sëriñ nekk kilifa diine sëriñ Touba di maamam mu ànd ak président Macky Sall ñu ànd mu koy jàppale ci wàllu politique nekk nit koo xam ne waxtu ne mi ngi xeex ak nu mën a def di fexe ba nga xam ne euh, diggante Touba ak euh, président Macky sàll lépp lu fa war a dox ci jàmm lépp loo xam ne nii tamit war na koo politique war na koo doxal président war koo am ndax la muy def ci dëkk bi benn président mosu koo def ci dëkk bi jàpp naa ne sëñ Modou Bara Dolly di xëy ci loolu ba ñëpp kenn umpaletu ko bu dee ñëw ña koy def it xam ko xam la muy daj ah xam fi mu fi fa fa digganteem ak président tey bu dee dugg ci jumaa ji jiitu président ñu koy téye ci ay bunt ba président di yëkkati kàddoom ah. président yëkkati kàddoom doyatut ñoom ñu continuer encore muy gouverneur di pale téye ma ko ndax waxtaanee Cheikh Mbacké Sakho moo njëkk a déyanteeg benn garde bi mu déyanteeg garde boobu bi ma egsee garde corps bi mu déyanteel moo ma kon loolu beneen mbir la boo xam ne waxuguma ci ci kanam danaa ci wax. alors euh, gouverneur nag moom dafa taxawaat jàkkaarloog publiquement président euh, xaaj gi leen ba noppi moom mu jàkkaarlook man ah jàkkaarloog ñëpp ah ne nan ma téye su fekkee boobu président joxe na ordre en même temps ca nag jàpp naa ne. ah sëñ Modou Bara Doum du sëtu sëñ Touba di kilifa diine di jàppale responsable politique APR Touba jàpp na ne di dugg ci barabu sëñ Touba moom kenn di ko téye kooku moom euh, du xalaat sax waxuma nit sax warut a euh, maanaam loo loo am loo téye nit ki ci nit ki xamu ko wala loo ko man a jàppal jàpp naa ne foofu doon toon place ba ñu war ko faa mën a wane ndax jàpp naa ne. Euh, <laughs> ku ne dañuy dugg ci sa barabu maam moom da ngay taxaw ci buntu ba ca <laughs> loolu yaakaar naa ne moom bu xalaatoon fa mu bokk li may wax lu am importance ngeen ba boo xalaatoon fa bokk bu fa duggoon fekk fa sëti ñooñu dana xalaat ci ñoom leneen lu du téye leen ay bunt waaye nag dama wax ne ñun ñoo war a gën a xam suñu bopp dama koy faral di wax ne bu ne sëriñ baa ngi def politique ñu naa noo xamul ba tam politique ci jaamu yàlla bokk politique ngir liggéey sa gox ngir jàppale saw askan ngir défendre saw askan jàpp naa ne kooku ci jaamu yàlla bokk mais côté boobu it danañ ci gën a leeral lu bare bare mais li am solo ma xalaat ne kon kooku def def jooju ñu parewaat ca ñu wax àdduna bépp dégg mu wëññikuwaat ñu demaat ngiñeen mu delluwaat répété waat ko ba moom ci jëmmi boppam mu bumax ma ñaari yoon ah, ba ay gàllankoor di ci am mu jox waxaat ordre ñeneen ñeent ba juróomi ay ñoo xam ne nii ay ay ay ay ay ay garde ñu man manee ma sonal ma ba euh, euh, clinique di ci amu yoon jàpp naa ne loolu moom mbir la moo xam ni la ma wax danaa ko topp mais topp gi premièrement li may njëkk def mooy moom ak nu mën a demee loolu moom lu ñuy saafara lay doon man nag dama faral di wax ne président Macky Sall laa àndal dañoo faral di wax ne engagement laa am ci moom it waaye nag teewut it ah day wax ci mbir yi yëpp yu ci bari yoo xam ne lu jëm ci injustice la comme que nag lu jëm ci injustice la ci moom gannaaw yàlla injustice mooy li ko fi teg bu gisee ay nit ñuy def loo xam ne injustice la man jàpp naa ne da war a yëkkati kàddoom loolu nag. maa ngi toog di ko déglu ndax xam naa ki ma àndal mooy kan xam naa nit la koo xam ne ku dal la xam naa nit koo xam ne nii tamit lu man di doon ah jàpp naa ne dana ko war a mën a liggéey parce que loolu laa yaakaar loolu laa foog la ca des nag bu fekkee ne dem na nag ba nga xam ne xam na ne ah, mbir mi moom danoo jàpp ne mbir mu demee noonu la moom lu ci nekk rek ah, am na réponse am parce que nag nit ki booy ànd ak moom dafa li ngay ànd ak moom mooy ab sac li ngay ànd ak moom mooy ku la jox wàccukaay li ngay ànd ak moom it mu am yëg yëg googu nag am na suñu diggante ndax ay ay xarit lan waaye nag bu ñu demee ba nga xam ne ngeen nekk ay xarit nga koy jàppale ci politique doon kilifa diina ñi ko wër ñi ngi am lu ñuy doxal sama diggante moom jàpp loolu moom pesum kanam la borom a koy fay. jàpp ne donc am na benn guerre xam waaw xam nga euh, guerre politique dafa am euh, ndax li tax guerre politique am mooy lan fi mu toll nii APR ñu bari danoo bëgg nekk ay leader. ñoom jàpp na ne élection yii di ñëw pour ñoom yàlla nag moo man lu ma doon ñu ci bari ñu ngi commencé di wu ñu ci am na ci ñoo xam ne moom pare nañ ba noppi léegi nag loolu ay homme ñu mel ñu mel ne man ay ay nit ñu mel ne man nga xam ne ils ay du ma wax baatu français bi mën naa euh, waaye li ma mën a tënk mooy nit ñoo xam ne ay pas-pas lañ am ay gëm-gëm lañ am mooy kenn mënu leen a jënd kenn mënu leen a fexe ba maanaam localiser leen ci benn point coin kii ñu mel noonu nag ñoom li ma xalaat ba xalaat ko lobby yooyu gars yi di taxawal nga xam ne kenn ku ne ñu ngi positionné ñu mel ne façon yu mel ni man nga xam ne bu ne président dañ ne la kenn mun leen a jaar fenn ñoo ñoom la nit njëkk a tàmbale xeexal di leen éliminer kenn par kenn di leen éliminer kenn par kenn ba bu ñu demee fan war a egg war a taxaw bu boobaa fekk na àll bi eh, eh, yom waaye man loolu dañuy nax seen bopp parce que li may wax waxtu ne yàlla mooy jox nguur ku ko neex. ah mën ngaa jëg waajal lu mu mën di doon mën ngaa jëg taxaw ci lu mu mën doon mais yàlla mooy jox nguur ku ko neex kon yooyu laa bëgg ñoom ci seen jëmmi boppam jàpp naa ne liñ bëgg duñ ko am ni ñu ko bëgg a doxalee duñ ko am li am solo mooy man pour man waxtu waxtu liggéey la waaye du côté positionnement wala du côté loo xam ne ni yaa ngi xool nan ngay def naan ëllëg nangam ak nangam yooyu yaakaar naa na lool ñii ñu fal mu tagut un ay quelques mois jàpp naa ne war na noo am beneen idée wala beneen xalaat waaye nag man lii maa ngi ciy xaar yeneen yeneen ak parce que gëm naa ne nag bu dee côté kilifa diine gi nag moom boobu beneen aspect aspela boo xam ne ni moom ci yoon euh, danañ ci wax tuuti yaakaar naa ne parce que am na ci loo xam ne kilifa diine yi dañ leen war a jox seen cër jox leen ay ba nga xam ne am na ci yoo xam ne nii mu réew mi musuñu koo ñeme dund kilifa diine yi am na ci quelque part yoo xam ne kilifa diine yi la mooy lan mooy kilifa diine yi ñoo war a am solidarité ñoo war a bàyyi diw du kenn diw du nangam diw du kenn fii bu dee ñun fan bokk na muy Serigne Touba kenn rek ay kenn muy Serigne Touba ñun ñëpp rek ñoo bokk meen maam ah mais comment wax yooyu ak ñàkk tegante gi fenn ah, ak li nga xam ne tamit moo am ci suñu biir xeexante yi ak waxante yi sew yooyu dafa am loo xam ne nii gënut da ci jàpp nag ne nit nga koy def jàpp ne yaa ngi koy déstabiliser eh, waaye fekk na yow yaa ngi déstabiliser comité bépp parce que dana tax. ki ngay naan ko kii du di du kenn wala tekkiwu dara mais mais fii kat moo fi tekki dara kon ah yéen a bokk mel maam ah ah seen kër maam yi ñëwuf ju may Tuubaa seen maam tamit sëñ Tuubaa di maam ah di di waajuram sama man sama maam sëñ Tuubaa mooy waajuram ah ndax eh, jàll la gi benn la ah loolu moom leeral naa ko leeralati ko ah sama maam may taawu sëñ Tuubaa sama maam am kër gu uf jumaa ji comme ñëpp mais sëñ bi am na loo xam ne bu neen sëñ du bari Dolly di kenn wala loolu wax ju yàq la mais yooyu yëpp ay façon xeexeen la yoo xam ne ni ñun ñoo ci waroon a am solidarité ñun sëriñ si xam ne fii moom kenn rek fi kenn muy sëriñ Touba leneen la ci tege nag mooy ñu jëm ko dox ci suñu biir rafetal ko xam ne heure bu ñu tuddee sa mbokk ah nga am kanam goo xam ne boo ko doxalee ka koy tudd du ko tukki ndax boo ne diw naa nga mbàkke de mën naa ne ah big maag moom a reeroo loo wax ni jeex na hmm? kon loolu man jàpp naa ne dama koy dénk sama mbokki sëriñ si beneen côté bi nag mooy li ci des nag moom bu dee question politique ñun xam naa nan koy doxalee loolu moom am nañ ci euh, am jàng alors dernière question bi le plan fan lañ mën a xaaral sëñ Modou Mbacké Bara Dolly si kii ñëw ba xam nga sëñ Modou Bara Dolly moom wolof dafay wax ne politique du du du du ëmb mais day xëy xëy wasin loolu wolof di wax ci noonu ñu ko waxee noonu la demee euh, politique moom boo ci nekkee di dox di yëngatu bul wax ne dàngam mu ta nekk toujours li ngay def mooy waxtu wu nekk. jàppal na lu ne mën naa nekk kon waxtu wu nekk da ngay doon koo xam ne mm, militaire nga waxtu wu ne da ngay euh, positionné wu toog euh, takk say say say say sol say dàll takk say say say bu taxaw parce que waxtu wu ne fu ne la la euh, mbir di jógee kon jàpp na ne la ca kanam moom du ma ci mën a wax lu bari ndax lu nekk mën a am alors que li ci am solo mooy nan bàyyi yàlla mooy wax mooy leeral li ci kanam. alors euh, sëñ bi sa kàddu gu waaw euh, di leen nuyu bu baax di leen sant di sant ñi nga xam ne ñi ngi leen di bàyyi xel euh, ci sunu gaal gi di ci xalaat ne lépp luñ ci wax mu doon loo xam ne xëy na am na ñum laal wala am na ñoo xam ne gisee na ko noonu mooy ñi ngi jégalu rek suñ gis-gis la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.